si dëgg la parce que xale góor yi ñu doon def la weekend passé yi passé ak yooyu parce que feeñ na ci benn côté. Mm-hmm. ins bi sant ñu ngi jaay daal vraiment sant yàlla. même ah, tabaski ren la fa yaay bi moo gën a génn purxa bi paquet yi ñu ngi koy jaayee quinze francs basé riche jazz waaye kër salaam fay man maa ngi tudd El waa actuellement de moom ñu ngi ci moom ak événement bi nii mm-hmm. waaw client yaay ñëw waaw ñu ngi sant yàlla bu baax waa si si bien sûr parce que mais tamit ak situation bi nii ni mu demee fan yële passé ak manifestation yi mm-hmm. lu bëri tamit joué na ci quoi mais ba léegi mais mais teewul nag client yaay ñëw ndànk-ndànk aussi waa si si parce que événement moom affaire yi nii événement bi jour yi muy gën a rapproché wu rek wanteer bi di gën a wàññeeku aussi affaire yi dañuy gën a wàññi bagage yi yaa gën a xam di wanteer di gën a jege rek ñuy gën a wàññi bagage yi waaw ñun moom xam nga ay Gambien lañ <laughs> bien sûr alhamdulilah ñu ngi sant yàlla de waaw incha allah. ñu ngi lay fay Cheikh Cissé. mais sant yàlla jubli si yoonante bi rek. par rapport événement yu jàll événement yu jàll ñoo dàq comme yii mais xam naa manifestation amoon moo tax marché bi doxul marché bi sant nañ yàlla bu baax mais loo gis am na lu gën a dox mais lu daaw moo moo dàq ren fépp mais ren moom mooy loolu pas nu mu laan doxee doxiwut ko dëkk bi métti na dëgër na nit ñi amuñu xaalis mais lépp sant suñu borom rek comme fekkee nañ ko fekkee nañ ko ren nañ ñaan yàlla fekkee ko déwén rek mais lépp loolu la non yaakaaruma ko nag yaakaaruma ko non duñ tëj ñu koy wax la xaar yàlla ah amin yaa rabbi amin mais matir moom ambiance moom doxul moom xumbul non non doxul de fii ñu ngi fee jaay ay mbesin riis ak lafiya jasner wal borode borode simple ak wax simple wax état get yooyu lañ fay jaay ñu ngi lafiya fi la waaw lafiya moo fi gën a dox macha allah ak mbesin riis ak mbesin simple ak wal borode yooyu moom dox na fi ak ah, kii wax simple moom dox na fi macha yooyu daal lafiya daal moom bokk lu gën a dox moom ren si FNA waaw maa ngi leen moom daa day gën a bari quoi waaye instant sant yàlla rek jaay mi ngi dox quoi waaye gaa daa na gën a doxee nii quoi. am na ah sant rek waaye daa gën a kii quoi daa gën a xumbee nii quoi waaw waaye sant waaye client yi ñëw daang daang quoi mi tane bu baax a am naa yaakaar quoi ndax client yi moom dina ñëw quoi xam naa ne dañuy xaar xaar waaye dina ñëw incha allah affaire bi waaw si bokk nag suyee na si tuuti rek suyee na si nag suyee na si bu baax a baax ndax instant bi heure daana fekk client yi ñëw génn bu baax baax a baax waaw. waaw métti na rek waaye liggéeyu góor la rek liggéeyu góor rek métti na trop waaye liggéeyu góor rek xam nga mooy loolu quoi liggéey amul na. nii rek lañ mën a am quoi mooy loolu waaw waaye sant yàlla rek client yi ñëw ndànk ndànk quoi. ça va ñu fay. Adja waaw instant bi moom xam nga période tabaski wax donc euh, marché bi bu xubbee waru leen a jaaxal donc instant bi moom ça va client yaa ñëw def seen i dem laaj ci ay aussi xam nga bu découvrir produit boo si musuñu ko gis normal aussi. donc ñu def suñu benn exposition bu yem rek génnee suñu produit wane ni ñu mën quoi ci marché bi. bon am na xaw na am toute différence na par rapport ak manifestation yeeg yooyu mais instant bi comme que commencé waat nañ di ñeme ñu ngi ñëw nànk-nànk. Mhm. waaw dina gën a dox parce que xam nga tabaski dañ koy waaj waaj tabaski ak yeneen événement yi c'est différent donc euh, loolu moo tax euh, lu muy gën a jege si rek. clients yi dañuy gën a ñëw di jënd si def seen achat ba pare ak euh, mois bi fi mu toll nii tamit dañuy lijjanti xaalis daal di ñëw jënd si. bon bëriwul nag difficulté yi taxul mu bëri noonu juste que ay problème bu cher bi wala clients yi parfois xam nga rek ñu ñëw bëgg produit te xaalis bi du ko mate tamit mais ñun moom am nañ fi ku ñëw rek lu toll sa doole dinañ la jaay loolu. ça va Amina Amina. ah comme d'habitude rek di bëgg suñu clients yi. comme on a l'habitude de le faire chaque fête muy Korité bi passé ak tabaski bi dañuy indi suñu produit yu bees yi di ko won di ko jaay gars comme ay shampoing démêlant yooyu marque Cosmo am na tamit euh, ay affaire yoo xam ne yu baax baax yi nga xam ne dañ ko def paquetage di ko jaay ci ci feetu tabaski bi a xeeñ neex kër yi xeeñ neex ba pare xale jigéen ñi dañu war a defar ambiance Grand Yoff moom benn la marché bi xumb na neex na ñu ngi jaay tamit vrai dëkk bi amul xaalis waaye ñu góorgóorlu daal ñu ngi ñëw nànk-nànk yi. non bu dee différence bi nag ci ñun am na différence parce que daaw peut-être amul lii ren la indi bagage yu bees yi nii mooy marque bii nii ñu koy jaay comme suñu entreprise moom chaque jour dañuy def innovation du coup nag. lii lañ leen indil ren di ko jaay dafa suñuy gaam yi baax boo paree sax naa la ci jaayaale ak monsieur tamit mën naa ko ci jaayaale ay gaam yi baax ñu defar ko waaw non lay gën a jax ci kanam moom client yi instant ci kanamee la daal sénégalais daal moo mën a dernier moment la ñuy xaar mais ñu ngi leen di xaar daal ça bien ci loo nekk yaa ngi si jàmm. kani si laa. ah waaye instant yii fii ci Touba Darou Salaam ñoo ngi fii marché Grand Yoff ah, boo passé église bi tuuti rek ñu ngi fii bagage yu baax yaa ngi fii wax dëgg yaa client yaa ngi ñëw par nànk-nànk ñu ngi sant bu baax bagage yaa ngi fi marque yu baax la ñu wàccee produit Dubaay yu baax la ñu wàccee. loo bëgg am na fi am nañu ay gel douche am nañu ay gommage loo bëgg am na fi am nañu ay poudre yu baax ay poudre euh, make-up yu baax am nañu ay pompe chambre am na ay cuuraay am nañ comme genre yi gommage ay genre yi gommage la gommage pour yaram ak pour kanam yëpp dafa baax ba pare marque Cosmo la marque Dubaï marque bu baax la marque <laughs> am benn problème soo paree dinaa fay am nañ genre masque yi masque yi aussi dafa baax si ay peau grasse ak ay acné yëpp dafa baax macha allah ñu wax leen ngeen ñëw fii xool dinañ defal ay prix yu xéewale sax loolu mbëgg daal am na fi. waaw waaw ñi ngi sant moom ñi ngi ñëw nànk nànk mais ñu gënee ñëw buñ esa eh, waaw am na tuuti différence rek mais c'est normal parce que événement moo mel noonu mais ñi ngi sant bu baax ñi ngi ñëw moom wax dëgg yàlla ñi ngi sant bu baax in amul ba incha allah bi parce que ay produits yu baax lañ am ay produits qualité lañ am yu baax waaw ngeen ñëw nag di wax ngeen ñëw prix yaa ngi fi bagage yaa ngi fi yomb ba bëgg dee diw yaram yaa ngi fi yomb bëgg de afra yaa ngi fi diw bébé yaa ngi fi yëpp a ngi fi crème solaire yi yëpp yëpp mi fi wax dëgg yàlla ñu leen wax ngeen ñëw xool si bu baax affaire même boo leen jënd sax ngeen ñëw xool <laughs> ah mais ñuy def tamit lu ñuy def <laughs> dañoo bëgg gars dañoo bëgg gars yi gën a ñëw rek <laughs> la waaw ambiance tabaski de moom moom macha allah ñu ngi koy gérer mais instant bi clients yi moom ñëwaguñu bu baax parce que événement bi esseegul noonu noonu. waaw dinañ ñëw incha allah parce que clients yi dañoo bëgg lu baax te ñun yu baax yi ñun ñoo ko yor cuuraay yeeg parfum yeeg xet googu Touba Darou Salaam nga ko mën a ame Grand Yoff TDS. waaw ñun dañoo bëgg lu baax te dañoo xam bagage baax fi nekk ñu koy dem di paas lu sori nag pour dem jëli ko indil leen ko. waaw waaw parce que ñun dañuy def prix yëpp am nañ prix yoo xamante ne nii yu moins cher loo am loo am am bagage ñun loolu la loolu moo ñu tax a jog dañoo bëgg a jàppale ñëpp am nañ fi ay parfum ay cuuraay bagage yu baax yi xam nga fii fii rek la mën a amee Grand Yoff Ah, ci marché bi pàkku ganaar bi place Baye Serigne foofu la lépp xewe waa kay noonu la demee nag ah instant bii ba bi passé moom neexoon na moom mais gëm naa ne bii di ñëw moo koy dàq waaw man loolu laa gëm man waaw maa ngi dundee yaakaar loolu am nañ fi ay cuuraay ay parfum chambre am nañu ay gommage am nañu ay gel de douche am nañu ay mousse en kii démaquillant bi am nañ ko maquillage moom boo ci bëgg am nañ ko waaw noonu la demee nag.